na 2009 la njëkk a génn albumam solo moom xam da loo wax na tamit rôle bi nga xam ne moom laa artiste war a jouer ngir nag soppi mentalité yi nee na artiste saa su dafa war a jege aw askanam waxtaan wu yaatu la séq ak journal bi di Rewmi Quotidien yéen a kaay gi de la saxëy di ñu xibaar nan ñu suba ci dimanche ji la campagne yu élection yi di doora li nga xam ne mooy tëbaski gi nag mooy yeexal li nga xam ne mooy dàggasante bi yeexal jàppante bi ak defante bi yéen gi mu ñu xibaar nan ñu Ousmane mi nga xam ne gisante na ak Omar Cissokho Ambalo njiitu réew boobu journaliste bi di Madiambal Diagne nee na Alioune Tine moo ko dox ci turu Ousmane Sonko ginnaaw kàddu yu Madiambal Diagne yooyu nag Alioune Tine moom tim weddi na ko ba tëdd sa naaj wa nee na li nga xam ne moom lay Madiambal Diagne wax ak li am méngowul ak dëgg yéen a kaay gi de la soloy daan nay dellu si ci élection législative ci Sénégal ci atum 1963 ba sunu yàlla jonne tey ji man ngeen ko lire ma ngi ci la soloy ba tey ci biir yéen a kaay gi de la sa mu xëy di ñu xibaar naan ñu Cheikh Omar Diagne mi ñu dugaloon ci bi bàyyi nañu ko mu ñibbee waaye Cheikh Abdou Bara ci kasu bi ngir kàddu yu mu yëkkati woon a jagleel ko ma Macky Sall moom tam bàyyi nañ ko mu ñibbee journal bi nee na ñaari cheikh yëpp bàyyi nañ leen ñu dem tabaskee ji seen kër waaye tamit laas nee na ñaari saagakat yëpp libéré nañ leen laas mooy waxa yéen a gi di Source A nee na bàyyi gi ñu bàyyi Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ak bàyyi gi ñu bàyyi Cheikh Omar Diagne loole nag tabaski gi moo fa jaara maanaam njéggale gi nga xam ne moom la ñuy faral di def tabaski gi loole bokk na ci li ko waral yéen a kaay gi mu xëy di ñu bi nga xam ne ñoo doon yëngatu ci lu jëm ci wàllum trafic migrant diggante Dubaï ak Dakaru ki nga xam mooy cerveau bi teg nañu ko loxo yéen kaay gi di estat xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum njënd ak njaayam jour yi Cheikh Kouyaté boo muy tuule sa Galatasaray la jëm yéen kaay gi di estat mu xëy di ñu xibaar naan ñu maître Babacar Ndiaye mi nga xam ne moo jiite fédération sénégalaise bu basket ginnaaw juróomi ñaari at yoo xam ne def na ko ci bopp fédération bi soppi na lu toll si juróomi entraîneur yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Gris Bordeaux nee na moo man Balla Gaye moo ko ëpp doole nee na Balla Gaye 2 pareegul te Balla attanutu ko moom Gris nee na Gris ma ngeen xamoon ak